auzu billahi mina seytaani rajim bismillahi rahmaani rahim sëñ Fallou borom kéemaan ci kàddu gi danga am jafe-jafe ci sa wàllub sëy danga tiit ci soxna sin lay waja takal takkal ndax danga tiit ci rapport bi ngay bëgg def ak sa soxna dama ni rombati reccu la xati ñak la adresse ba ben la serigne fallu kima dama ni koy mani lu tax ma moy waja mako xam serigne fallu kima dama ni moo ñu ko sa ngeem bepp goor bu am jafe-jafe ci wàllub sëy boko sété da nga bëgg lool dama ni am ca ñatt yu wuté goor gu tele goor gu gaaw daanu gu ndoxam bariwut mani goor gu awraam gàtt nag te bëgg mu gudd dama ni ça dépend ci yow noo bëgg mu toll Serigne Fallou Kéemaan jàppale la ci mani am na ca ñett yu wuute am na ci sirop am na ci pëndëx am na itam bu nga xam ne saa soo ko diwee noo bëgg mu toll noonee lay toll rax ca dolli nag da koy gën a augmenté mani da koy gën a duufal lool Serigne Fallou Kéemaan mooy kii yàlla may ci wàllu kàttan dama ni adresse ba benn la numéro téléphone ba di ñaar wooteel gaaw ci 77 274 29 48 77 274 29 48 wala nga def 76 540 58 88 76 540 58 88 dama ni boo ko rombee da nga sëngeem ndax wàllum kàttan moom kott la ko fi yàlla suñu. ñi leen dalal fii ci boutique Total Kër Xaadim boutique Total bi nag sa am gaamu soow soow piir soow mu neex boo xam ni nag ci ay siwo la nekk soow mi mi ngi tudd poroxaan soow kon jërëtul vraiment nit di jóge Dakar di jënd ay produits di ko indaale li mu bëgg yëpp bu ñëwee fii ci boutique bi dana ko am te di sonn du ci fay transport waaw jus gis nga ko ni mu demee am na un petit format bii nii am na petit format boo xam ne si c'est quinze pack de quinze lay doon xam na c'est conservable cest mën na

pack bo xam si day am bisaab blanc am bisaab rouge am citron am tamarin am ananas li ci gëna neex nak mooy ananas citron loolu mom bu ko kenn sacc mbiru poroxaan mais dafa nekk format conservable c'est-à-dire que produit bi yag a durer xam nga produit citron yo ci gis wala produit melni euh, conservation bi du du yag. mais li dang koy tek bu la neexee ni à l'air libre bàyyi ko fa mu def un mois quinze jours Ça soko ko sa gan day gëna neex mais goût du changer. mais est-ce que sóoraale ngeen diabète gi bien sûr maam képp koo xam ne si tey def nga sa commande

bisa mandai boy. Lap lap. Hujan jauh ini. Ih, boy, na yuwa sun boy. si loo nekk. yaa ngi am jàmm bu baax. <coughs> waaw man moom tey boo gisee sama tànk tey dama bëgg mën a xew ñu waxtaan sérieusement euh, waxtaan bi ne li ko wundu moom mooy sa diggante ak euh, Mara Kuro dama bëgg nga euh, nga bu baax a baax a baax xam ne bëñ ak làmmiñ ñoo dëkk te yenn saay dañuy daje. àdduna lépp loo seen rek am na lu njëkke waaye dafa fekk ni kay jaan ji ma jàpp ak jaan ji nga xam ne moom laay wër nekkul benn benn bi dama bëgg nga xam ne nit bu ne day juum te ku dul juum amul si nga maara ci ñoom la la tànnee te xam naa ci yow lu njëkke ci jigéen kon lu mu metti metti rek war nga am audace ne moom ci yow la war a mujjee gis nga góor soo ko bëggee diriger da nga koy jox liberté genre mbëggeel nag du forcer quoi xamam mbëggeel lan moo koy taawu dëgg dëgg dëgg mooy communication man jàpp naa ne yow ak Naara yow ak Mara amul lu war a lëndëmal seen xel. amul loo xam ne war na mën a ñaaw seen diggante parce que mbëggeel pur et dur ngeen doon dund yow yaa ko njëkk a comprendre ci jigéen mais yow la njëkk a comprendre aussi kon man jàpp naa ne seen diggante ay wax yu ndaw ay jëf yu sew warul tax kenn ku ne bëgg a jëm goos wala droite kuro gis nga xam-xam nu mu bëri sa bopp boo nelawee fàtte gis dana ñëw man sëriñ bi ma jàpp jànt ba àdduna bi yëpp xam ne sëriñ bi jàpp na jànt kenn rek moo dul juum mu yàlla des fois na nit ki su la bëggee dëgg dafa am kersa ci yow parce que du la gëmee Mara xam nga ko bu baax j'ai un dafay dund ci yërmande dafay gis nit sax peut-être ay ronko ñu mën a tuur ndax yërmande bi mu am ci moom yàllaa ko bind mu muy sofe ay doomu aadama kon moom bu jëlee naaraa def ci biir këram rien daf ko daf ko yërëm daf ko bëgg a dimbali mais ñu waxante dëgg aussi naaraa xamul yaay noo xamul bàyyi ci jamono ji ñu nekk fii nii kenn rek la gis muy maaraa kon maaraa rek moo ko mën a soutenir xam nga yàlla bi ñu bindee dafa wax ni nañu bok, nañu jokk ci benn buum te ñuy bañ ci tàqalikoo kon boo gisee koo xam ne yaa ko tane da nga koy dimbali mais man bir na mën a tey maara suñu xaroon bir xolom bi yow rek yaa ci nekk il faut nga ñëwaat yu ñaar ngeen nekkaat toogaat ngeen ànd jéem a dem peut être bu ngeen demee su ngeen waxtaanee da ngeen juboo loolu rek moo nekkoon samay tànk quoi en tant que diggante nit ak xaritam te xam naa man la ñaanee danga ma may. man su la dee gis. Mm-hmm. donc damay gën a am mbégte quoi. Mm-hmm. xam nga lan moo tax. waykat bi dafa wax ne nit ak ki mu bëgg loo ko ci wax mu sëgg même bu dee dëgg ndax ay dëggam lay jënde ay gëtam en tout cas ba ñëpp dawee jublu soow dama jublu penku. tey nak sax neex na. ah ndaxte xam nga penku sah, bu ñu julli sax penku la ñuy jëm boo demee Makka amul penku kaaba ga rek la ñuy julli. Mhm. te ñun Sénégal gii kaaba ga penku la ñuy julli. mais nag bi mu jubloo penku. Mhm. damaa dajeeg lumière. <laughs> boo xam ne dafa tàmpe sama bët. ba tax gisatuma dara moment yi saa sama rek gis hmm. ah. bu dee nax sax neex na. nara mara loolu dafa am lu bari lu muy wun <laughs> yàlla li mu def du hasard. billaay wallaay. cum non dama kontaan ci yow baax na. gis nga eh, jigéen dafay bëgg góor dafay bëgg jigéen bi sànc ba jekk di ko jege. xëy na. cum. xaw <laughs> ma jooy. Ah, hmm? mu jàpp jaan fan la jëlee jaan boobu. <laughs> en tout cas daal sëriñ Birame. jàpp na euh, jaan. mu jàpp. jaan mhm. jooju. mu mën a wax de mu mën a wax de. <laughs> cas bi ah ay eh bi. Ah, kii mooy sangooguma sangooguma laa tudd. Ah. <laughs> gis nga sëñ Birame. Papis gis nga ne boobu ba léegi yaa ngi wax dagguma la. Mhm. lenn rek moo ko waral parce du ma ne xaritu Mara nga parce que nekkatuma ci cadre boobu parce que yow dafa dem ba ma jàppee la comme si sama frère nga déjà man dama la rus yu bari moo tax sama diggante digganteeg Mara depuis mu commencé ba léegi gisoo benn yoon may ñëw naan la Mara nii wala naa te yow sànq dangaa wax que ne communication dafa baax ci relation man Mara ci communiquer laa laa dëkk ak moom tout le temps damay waxtaan ak moom ci njekk ak nga foo xam ne yow nekkoo fa. naaraami waral coow li sax nekku fi te kenn duñu xamal dara noonu laa mos a dëkkee ak moom ba baa naaraa di ñëwee ci këram mais nag papis dama dem kër Mara te gis nga jour boobu ma fay dem maa ngi doon tiit ànd ak jaaxle parce que toog naa ñu am programme woon dem muy seeti sama benn tonton boo xam ne ñun xam nga ne suñu famille doxuñ ci yéen dalay caaxaan te xam naa ne Mara bu ma àndoon moom dem foofu noonu sama tonto boobu mun na ma ko may parce que xam naa du ko laaj dara ñu programme loolu ba war a dem ma toog gisuma maara dégguma ko ma jaaxle xaw ma nu may def donte xam naa këram ma dem ba këram pour seeti ji ko pour xool lan moo ko dal wala lan moo ko tëree ñëw te dañoo waroon nekk nekkoon si yoon war a dem mais papis bi ma demee foofu am naa fa lu ma metti jëlee naa fa gàcc xol bu naqari yaakaar bu tas la ma fa jëlee lépp bari na mun ma ko wax sama xol fees ma jooy te kenn naxu ma te jooy yooyu noonu mun ma ko woon a jooyee feneen munu woon dugg sama kër aussi di jàkkaarloog sama papa wala sama rakk bi ci kër gi nga xam ne am na yoo xam ne war naa ko mën a nëbb jaan ji mu jàpp euh, xale yi ñoo ko gis quoi waa koñ bi ñoo ko gis ko waa koñ bi gisee nag dañu ko woo parce que ñemewuñ ko woon kenn ñemewu koo téye parce que jaan joo xam ne moom màtt na fi ku ne <laughs> risque la nga koy téye finalement biñ demee woowee sëñ bi mu ñëw jàpp ko yóbbu ko ni këram mais laata sëriñ mbirim di ñëw mm-hmm. parce que gars yi xaañ nañ ko xaañ ñi dóor ko ba daañu def ay dagg-dagg dégg naa donc euh, sonn mënatuloon surtout na sax def dara quoi. léegi ana jaan bi. ah donc. Euh, mi ngi sëñ waaw sëñ bi dafa jël jaan bi ah. yóbbu ko ndax xale yi ñoo ko dóor léegi nag bi mu ko yóbbu dégg naa ay minit teg la fa def dee. jaan bi dafa dee. jaan bi dee na dee bu yàgg naa la jaan jaan ji jaan ji dafa dee. ah bon. walaay ndeysaan. Nara. Hmm? lu xew. ah dara xam nga sëñ bi jàpp na jaan ba loolu ngeen bëggoon kay. Hmm? léegi jàpp na ko waa koñ bi ñëpp gis nañ ni jàpp na ko. Hmm. loolu mooy nekkatul waxu ah, yaakaar naa jeex na quoi moment yi moom jàpp naa ni kenn dootu wax wax jaan donc jaan ji lëmbe woon koñ bi jaan ji doon euh, sonaloon ñu. jàng daf ñoo sonal matt na fi ku ne mais instant bi moom jàpp naa ni ça y est waaw moment yi moom ça y mhm. mais dama daw dugg sama néeg tëju jooy jooy ba sama xol sedd xam nga lu war a yooyu jooy papis wala boobu xol bu naqari ma demi kër Mara dama ko fekk ci anam boo mau ne moog Mara moog nara anam bu doy waar ci koo xam ne kau ne danga ko fat sa kër parce que danga ko <laughs> Mara ni ma ko ak Naara man ruus naa sax di loko ko expliquer ñaaw Batang trop ba tax na sama diggante ak yow na fi yam jeex na parce que affaire bob dafa tax ma comprendre que ne depuis ma nek ak Mara di wax ak mom goudé beccëk mom mu may lo que ne dafa fat nara ci kërëm parce que daf ko yërëm alors que ne daf ma doon fenn waxul dëgg depuis bobu ñu nek yépp ma ngi doon nek ak Mara seen biir kër ñu nek nenañ dañuy dund ci sama ginnaaw yow papis yaakaar nga ne Mara war na ma mën a def loolu ak man a moom fi ñu jaar yépp muy jëndee beneen jigéen te xam nga ne mën naa baale lépp ba mu des ay fen te Mara daf ma war ba tax na daal bu ma sañoon ku nekk nu mu xam mu bootee doom man ak Mara moom jeex na jeex na te bëgguma ci wax sax sama xol di gën a naqari. Hmm. boo tëddee nii sama wet mais. kii quoi da nga yërëm jàll. dama ko yërëm xam nga nee na nu tudd sax affaire mbuut sax waroo ko rey. da ngaa am ci man nag ci jaan bi mais say jaan ji léegi askan wi yëpp nangoon na ne jaan na waaw donc xam nga xamul sax jaan ji nit euh, yi yem la mais bu ci waa koñ bi dëgg-dëgg yemoon parce que nit yi yem bariwul est-ce du ñaari nit ñoo ko ñoo ko gis. mais bu ci waa koñ bi dëgg-dëgg yemoon kon jaan ji dañ koy daggate quoi man xam naa ni. waxuma loolu de. ba ñu ko jàpp xanaa wóoroon papis waxoon na moom bu ko gisee sëmbal lay jël tag <laughs> la jaan ji njëkk a màtt. <laughs> yowul jaan ji lan war a xoolal. moom bu doon dagg boobu jaan ji dana ko màtt. moom <laughs> jaan ji fekk ko jot néegam toroxal ko mu nelaw ay fan. Koura je comprends rek. Euh, lu tuuti rek laa lay wax gis nga liggéey ay at yàq ko ci benn fan ak dof la xol bu yegee dëgg jëmmam du koy fesal c'est normal na nga réagir nii mais waxtaanal sa ñeganaay gis nga boo toogee benn fan bàyyi maara fan ba ca topp yaa koy wëri mais nag c'est pas man dinaa jéem a waxtaan ak maara pour yéen ñaar ngeen ànd ngeen dem seen nijaay bi peut être bu ngeen fa demee solution dana am d' accord euh, man nag maa ngi dem. yéen ñaare ñàkk classe xamu leen ku leen bëgg yërëm leen. da dafa café Touba mu naan. café Touba. ah man. <laughs> xam nga dama ci sawar. ay tub man sama café rek. Eh, café Nara kafe Nara, nara kay ñu wax kafe naara. kafe naara dimo ma ragal jaan. de moom bi de. te ma lay sax. non non do ci ah kon jaan. da da defaral ma kafe nara la kafe nga man dé tey damaa ñu waxtaan na ndax man sama doom nga dama lay xoole comme sama doom bu jigéen yow yaay sama doom bu jigéen man awma doom bu jigéen papis rek laa am te dangaa ñëw ci kër gi ma di la fiire ak papis sama doom bi ma jur laa la fiireel kon xam nga bàyyiwuma ku jógee ci àll ba di ñëw mm-hmm. te am na ku ma fi fekk di ma la laaj waxuma la dara nag moo tax tey ma bëgg waxtaan ak yow en tant que jigéen yaay ak doomam te dama laa def comme doom ji ma jur ma sañoon nga góor góorgóorlu bu baax toppatoo si liggéey bañ bañ a bàyyi xel xale yu góor yi dañuy tardeel di jigéen surtout mm-hmm. xale demul fenn ku ci dem bay takk ka nekk sa pooju yaayam lay takk waaye waye waye yii duñ ci takk suma sañoon a nga toppatoo sa liggéey fonk sa liggéey jàpp sa liggéey lépp loo man waaye pour nga am nga nekk fii góor bu neex mu ñëw laaj la duggu genn duma neex duma gëna te man dama la bëgg. Mm-hmm. yaay sama doom bu jigen man xawma jank kuma nekkal comme sama doom la xam suma ma na nga lu bu baax ba kenn dula yab fi indi du am gatché man mi la duma am luma nakari ci yow. jëluma ben décision nakari wax lu la ya wala lu la metti yow sama doom nga. Mm-hmm. na nga gor lu baax. fonku sa liggéey sa liggéey am fu la fayda ci xali jëmum fenn dañuy tardé nit waaw lool la amoon ci lu ma ne la ko wax ñu waxtaan ci. man ko sa yalla xamni sa man xawmako dama ko damaa jég rek keroog tamit amna ko fi ñëwoon ma jég saa rek gis ko fi ne ni ma yeddee daf ne contant na ci dëgg yalla oh, oh, dëgg la. bu dé mëna mala sa xel na dal. Hmm. sobe yalla do am sama man nakari. da li ngay wax mo gëm naa du ci yow pour man ma tax ngay wax. Hmm. man looy wax rek man ngay dimbali. Mm-hmm. incha allah li nga wax naa ci bàyyi xel bu baax. waaw soobee yàlla. ah dama teg benn gàcce sa xel na daal. Mm, góorgóorlu de. <laughs> waaw incha allah fii moom sama sañoon moom. Mm. macha allah na nga fi nekk ba heure bu mu la am jëkkër rek. incha allah fi gis dara loo fi dégg. <laughs> moom xam nga jëmuñu fenn dañuy tardé nit rek. dëgg la de góorgóorlu rek dégg nga. sama xarit nga <laughs> sama doom nga. Ah, am na ndax mbeen moom ku ma indi rek dama koy bëgg dégg nga. sama xarit la. Ah, waaw baax na papis nag moom dama la ci waxoon la ciy waxaat ba tey papis mayul ma ko mayul ma ay moromam yu mel ni moom papis sama doom la maa ko jur xam naa jikkoom soo dikkee ma di la feere moom xam naa jikkoom bu baax a baax maa ko jur nag waaye xam naa jikkoom ci kaw loolu nag moo tax ma di la feere moom gën ma koo mayul loo ma ko gën a mayul nga xam ne ma la wax te dig ko te jàpp ko bu baax. waaw sama doom sama xarit ka mayul ma papis. Mm-hmm. ne danaa la woon. booy defar néegam sax bàyyil ba xëy. waaw loolu ba tey maa nga ca. papis moom bokkuma ko kenn pour mu leer ba tey maa nga ca loola. waaw dégg baax na waaw. góorgóorlu. waaw incha allah bàyyi xel li ma la wax bu baax. bàyyi naa si xel bu baax kay. <laughs> maa ngi demee yeggale sama liggéey. waaw ah, kay baax na ci kanam kon. waaw hmm. su ma deful nii xale yi su ma deful nii bàyyi ko ci rek. ku dugg bu ëllëgee bu sa morom dikkee dugg te papis mi nga xam ne mi ngi mel lu may bañ a tudd kenn ma ne ko xaw ma sax nit ki nu mu tuddati ñëw na fi dafa mel ne koy ray boppam action boobu sa dafa ma jaaxal ba léegi sii rek papis mel ne kuy say ah jaaxle naa de naa am naa jànku bu rafet waaye dinaa ko réccu coono gi ma nar a am fii. kay di la laaj nekk instant bi dama tiit sama fit bi toogatul dara dara dara dañoo jàpp benn jaan ci koñ bi ñëpp nag man lañ ko tegoon jaan bi dañ ko dóor ba jaan bi dafa mujjee dee te man xam naa ne bis buñ ma jàppee lu raw jaan bi lañ may def nekk jaaxle naa torop man yow rek laa am yow rek yaa ma mën a dimbali instant bii nii. xamatuma man instant bi xamatuma lan laay def chaque jour jaan bi chaque jour jaan bi chaque jour jaan bi rek la lay dégg kenn bàyyiwul jaan bi tey lañ gën a bën tey lañ gën a bëgg jaan ji feeñ gàcce boobu nag àttanuma ko ak Mara li ma ji yëpp rus naa soppaliku ci kanamam moom may gis dee wuute ka sax moo ma gënal. Mara na sa xel dal ndax ñaari kuy de buñ bokkee mbalka ba seeni béjjën roofaloo day xala metti waaye ku ne da nga mos ma lay xamal lit ne boroom lu xonk loolu di sëñ bilim ah bés kat a ngi ñëw di nga feeñ ci gëti maara ah? naka dégg ma li nga wax ma ay bés a ngi ñëw ci kanam maara dina xam ne yow mi yaay jaan naki man nan laay def bañ xamante ni loolu du am naki looy gis am na ay sarax su ma génnee sarax xam ne duma soppaliku ci kanamu nit ñi naki gàcce boobu attanu ma ko xoolal ay sarax mu nga génne ko ma xam. Hmm. Nara loolu de ñàkk faw nga feeñ. naki loolu. ndax bu doon loo xamante ne day jóge ci sëñ bi lim moomu ma mën koo fanq waaye ci jëmmi Mara lay jóge ndax moom ci boppam am na lu mu àndal lu ma tàyyee di la ko wax man nag maa ngay dem waaw man nag yi nag yi tey lan la ma dikkee nii dinaa feeñ ci kanamu Mara mu jàpp ma ni xam ne man naa raa man maay soppaliku jaan bi maa màtt ñëpp mais loolu suma tiit mais tey tiit na trop fit rek laa doon demee mais tey moom sama fit réer na ma